nga defal dara mu woo la jënd la def nañ ko fi ay député ba taay. mais ñoom joomaay du def loolu. tew du jël justice di ko tege comme kooku maanaam moom ci légalité lay dox. mais nañ ko jox majorité confortable pour ne pas dire écrasante xam nga sadik yi rek ñoom ñoo doon wax on va avoir majorité écrasante. réduire opposition à sa simple di ko xeetu baat yi sauvage <laughs> majorité confortable lañ leen laaj. d' accord mais euh, Thioune Madiambal nee na ci li jëm ci état des lieux Sonko euh, dafa jalgati loi dafa waroon xaar cour des comptes. dafa jalgati dafa jalgati yoon dafa waroon xaar cour des comptes. kan c'est-à-dire. dafa bëgg a wax ne. ci état des lieux bi ñu annoncé après Sonko waru ci wax mais dafa war a bàyyi Cour des comptes mu ñëw ci loolu. xam nga kii léegi Cour des comptes na. Mhm. amoon na benn initiative bi gouvernement bi jëloon bu baax tuddee ko le gouvernement face à la presse. Mhm. gouvernement face à la presse li tax mu solo mooy. Mhm. askan bi ak gouvernement bi. warul am li ñu tuddee genre nëbboo mhm. maanaam ñàkk xam warul dox seen diggante ñàkk xam mooy nga nekk doxal rek nekk sa bureau tëju soo paree dugg sa oto dem ñu escortale nga dugg sa kër ba paree nga demaat sa bureau et cetera dara xew nga bind benn communiqué nga signé wala des fois sax dara lay xew doo signé wala doo wax dara nga noppi askan bi dafa war a xam ci li ci li li nga nekk dafa war a xam ci lan nga nekk mhm. léegi c'est différent nga wax ci rôle justice nga jouer rôle justice différent cest fan la différent mooy tey Ousmane Sonko doo tey lu gouvernement en tout cas su ko def suñu defee dina ma jaaxal doo gis benn yoon ñu tudd diw par exemple lu ñu la wax ministre diw sàcc na xaalis mhm, mhm. doo ko doo ko mës gis doo ko dégg à 16 heures da ngeen seetaan loolu du am parce que du seen ressort du seen du seen cër nga taxaw naan ministre tel wala daaju tel wala directeur wu tel jël na xaalis bi yóbbu na ko fee mais sañ nañu ne ministère bii niñ ko yore woon mauvaise gestion la loolu c'est un état des lieux sañ nga ne aussi li ñu waxoon par exemple ci budget bii soo gisee Sénégal mu am lu ñu leen déficit budgétaire yu gisee lii am c'est parce que jamono bii ñu nekkoon ci réew mi lii leen doon doxalee hmm. léegi nag yow lu ci des yow yaay jëli léegi di justice mooy naan lii ni puisque doxalin bu ñaaw la wan am naa pour dugg ci ma jéem xool nan la demee mhm. responsable yi ma xool kan la ma ma woo leen déglu leen bu dee war nañ leen atte ñu atte leen bu dee war nañ leen rectifier ñu rectifier leen donc loolu c'est le rôle le rôle du gouvernement c'est de communiquer sur la situation actuelle à chaque fois dara xew dañ ci war a wax ca pas c'est une obligation lépp lu xew ci réew mi dañ ci war a wax mhm. et luñ fi fekk nag c'est normal moo tax pourquoi on dit des passations de service c'est ça passation de service mooy yaa ngi dem maa lay remplacer booy dem sax da bàyyee may bàyyi document document boobu nga koy bàyyee c'est pas parce que dañuy bind rek rafetal mooy li ma fi bàyyi. sukkandiku ci référentiel pour nga xam man li ma def li ma doon def lan la mais aussi fi li ma doon def fu mu toll. Mm-hmm. léegi yow yow muy commencé nag au laa de ça mën nga def li ñuy tuddee audit. audit interne administratif et financier pour nga gën a xam. loolu après boo xamee boo jàppee war nga ci wax da nga ciy wax boo jàppee ne war a dem justice da nga ko yóbbu justice c'est ça. <laughs> ma jàppal day politique man léegi moom. léegi moom léegi moom moom léegi est-ce que xam nga ne yoon daf ne. Mhm. voilà ma jàmbal jaañ ñaar ma jàmbal jaañ. la le code de la presse nee na. Mhm. journaliste mënul nekk mënul def politique. moo ko wax de waxuma ko bu de def dañ ko investir. Mm-hmm. mënatul nekk journaliste c'est fini c'est fini waroo ko nekk. code de la presse moo ko wax mooy bu muy euh, amee ay bu muy ne du xuloo waa CNRA moo tooñoon de. Mm-hmm. moo tooñoon même ñu ko faraloon même bu ñu ko doon faral nekkul ci dëgg. parce que code de la presse daf ne mënoo tàggatoo principe yi principe de neutralité principe d'objectivité principe d'impartialité principe de. Euh, mooy principe voilà ñett yooyu mënoo tàggoog moom. te boo nekkee politicien wala nga nekk politique da far. alors léegi est-ce que war na la jox antenne ngay xas ñële parce que dañuy bañ propagande war na saa kii la koy tooñ. dañuy bañ mhm. nga nekk ci benn boor di défendre boor boobu ngay attaqué beneen boo te ku amul droit tontu. wala amul occasion tontu man ma journaliste. léegi loolu c'est de la propagande loolu moo la ciy bañ moo tax les journalistes amul droit def politique soit boo décidé soit tu fais de la politique. tu fais pas de la du journalisme ou bien tu fais du journalisme tu fais pas de de politique ñaar yooyu la donc Madiambal d'office vous n'êtes plus. Euh, journaliste droit euh, wax ci bon il est fort journaliste de formation d'accord. mais mm-hmm. mënutoo taxaw di wax di revendiquer ce statut de journaliste ci presse. Mm-hmm. tàgg boo bàyyee politique moo tax Pape Djibril Fall il a bien compris. Mm-hmm. quand il a décidé de politique dafa démissionné ba def point de presse boobu léegi mosoo ko dégg si yooyu. parce que yoon dafa et nag homme yi nag ñu def nekk journal nekk politique ñoo ma war a sincère wax dëgg. Mhm. xam ne yoon da leen tere loolu. amee na dara au lieu mu wax yoon daf ko tere mu commencé non Macky Sall ma moom moo gën a xam ne yoon dafa ko tere loolu. ñoom ñëpp ah, kon ñoom Mamadou Ibra Kane. waaw Mamadou moo tax mu bàyyi ah, est gisoo ko mu dem présente benn émission. waaw depuis boobu retiré wu na waay mais xam nga ne yoon dafa ko tere. Mhm. su ko defoon léegi Sénégal bind ko. ma jëmbal mi xam naa certainement Sénégal nu ko bind mais c'est interdit. waaw def journal def politique c'est pas possible. Ah. voilà foofu c'est clair euh, muy euh, Madiambal Diagne Saa Wolof dañuy ñëw ci ci yéen waa Pastef mu mel ni am ngeen benn soutien bu mag a mag Mame Boye Diao ñëw na. <laughs> waaw ñëw na parce que xam na enjeu du moment au moins loolu moom dañ koy reconnaître. Mhm. mooy ne comme taxaw ci dëkk bi am intention de nuire faire mal bu ñëwee dañ ko rafetlu waaye nag mu xam ne dawul suñu yaram. dawul seen yaram waaye ñëpp ñëw jàppale Pastef projet bi. waaw mais du tee bëgg ngeen am benn majorité à l'Assemblée nationale. ku ne ne nga toog fi nga toog fi avant le. ba Sapor ñëw. avant le 24. Ah. ah déedéet maam booy fan la toogoon. fan la toogoon avant le 24 waaw non non xam nga xam nga mais peut-être est nekkul ñeneen lay wax. ah déedéet. baax nañu pousse valise bi. bokkul Diomaye président déjà Diomaye président amul. coalition Pastef la léegi nag bu ñëwee ndax dañ koy investir loolu moom fa la nekk. est ce ñëw jox leen dooleem. Ah. waaw bu ñëwee jox ñu doole loolu kay bëgg nañ ko mooy ñëw vote. waaw faire voter lu nit ñi. am de. waaw loolu kay. Mhm. d'accord naa. bu baax sax voter et faire voter loolu kay. kii ah yéen waaye ndax yére yi ngeen ngeen ngeen bañoo. waaw moom yére bi yére yi nekk valise waaw waaw mooy nit ñi carte yi lañ bëgg problème bi nag. waaw carte yi lañ bëgg te carte yi lay tax nga xam nga dafa loo bëgg ak luy tax nga dem fa. léegi nag principe yi nag mooy na carte yi ñëw amul benn problème. mais moom. ah ñëw lan déedéet sama loolu dugg ci. abiyaas bi daal ah déet. waaw non moom ñëw na ñëw na ak carte ak mbooloom. pour voter. Pastef les patriotes. ngeen accueillir ko à bras ouvert. waaw kay waaye nag ku ne téyel fa nga téye woon ba sapeur ñëw. sapeur mooy justice. <laughs> non sapeur mooy <laughs> na ku ne jàpp fa nga jàppoon ba sapeur ñëw <laughs> góor gu góor gu bëri mën a tappale a nekk ci accident oto bi taxaw ak xale bi jigéen bi nii jàpp ci ci mbay mi quoi. accident bi kii xam na <laughs> ndaw si xaw koo jege gars yi naan na ku ne jàpp fa nga jàppoon ba sapeur ñëw maam fa jàpp lay bañ a bàyyi daal mais hmm. nag ku ne jàpp fa nga jàppoon ba sapeur ñëw. parce que ah loolu moom daal faatu moom. ayib ba ayib ba ah keneen di yem Cheikh Dieng aussi moom itamit wanewaat na àndam ak euh, Pastef moom docteur Cheikh Dieng waaw ah, wane na ne oh. demul fenn aussi ah. dafay soutenir ah. euh, coalition bi. nga demul waaye après justice rek buñ jógee ci inondation yi ba xool ku nekk li nga wax léegi euh, Sawolof d'accord soutien yi yëpp nga yaakaar ne dafa am lu làqu ci ginnaaw. non parce que ñenn ñi nga xamante ah. comme ñëwuñ ñoom pour am lu ñu nëbb wala am fu ñu. wéeru